ñu ngi lay nuyu Pendo di la wax félicitation. waaw merci beaucoup. merci beaucoup. ñu bëggoon xam sa relation ak ki nga xamante ni mooy Mbène Diatta Seck. waaw Mbène Diatta nag démb ñu boole dañoo yàgg ànd bi ñu nekkee xale ba tey ñu ngi ànd donc parcelle bu njëkk ba moo ñu boole woon man ak euh, Mbène Diatta Seck bi ma gën a nekk xale may ànd ak nag euh, magam bu góor muy boogaa rakkam sax gu boogaa may dal seen kër sax gàmmu Tiwaawan ma doon dal seen kër donc Mbène di sama xarit moo tax tey man ma ñëw na tubarkalla waaye dama ñëw ànd ak leneen muy jee asu sare yebal ma jee asu ak Mbène ñu yàgg loolu du dëgg donc nag tubarkalla looloo ma indi sare maa ba ko ku mu yónni ay eh, bañ booba dangaa xamul li fi nekk yëpp tubarkaal tey jaasoo la nit ñi maa la wax loolu. macha allah kàddu yi na waaye itam da nga nekk li nga xamante ne mooy nouvelle mariée kenn dootu ko wax nga def mariage bu am buzz lu waral lool. sant yàlla rek dañ ko doon ñaan peut-être ñi ñaan ñëpp ñoo bari woon uh-huh. ma dem ci sëñ Abdou Karim ñaan dégg ko samay loxo mu ñaanal ma du dëgg waaw may taalibe sëriñ Babacar amul at waaw waaw dama ko bëgg ndax euh, doomam sama xarit la du dëgg te sëñ Abdou Karim ku baax bëgg ko du dëgg kuy sa kuy sa baay sëñ Fallou ku baax bëgg ko borom na am moom tubarkàlla du dëgg ak Pape Malick si njoogu faama si di faagay demami si jawaar Pape Malick sama xarit la sama sëriñ la ci Malick gis tam sa jour mariage ngay woy en général marié day tiit day stressé mais sa jour mariage stressé woo benn yoon waaw yow tam dama la laaj ndax yaa yàlla bu la defalee li gën nit di ñaan muy am looy stressé lu xew bésu mbégte la mbégte bésu mbégte mbégte rek lay doon ku mer bokkoo ku mer kalaameel yàlla. yow koy gaaruwaale nii. gaaruwaale sumbulu sumbulu ak Mbaaco Ndiaye Oumou Sow non non kaay di ma wax ak ñoom nag dama leen bloqué nag sumbulu Aïda Samb ah Mbaaco Ndiaye. Oumou Sow bisu ngoone waaw célibataire bi ma wax ak ñoom dépassé naa leen wax déedéet waaw waaw. luy sa secret ci ñaareel lu tax Pendo ñaareel. man am ginnaaw ginnaaw gu taxaw rek ci wàllukaan dama ko bëggoon waaw dafa maa gënal waaw ñaari fan fee ñaari fan fii nga changé waat sa yëf defaraat sa yeneen gënul waxal ah. Pendo ah macha allah nekk deuxième femme ak projet yi du la yàqal dara. non non non ma yàqal dara nag tubaarkàlla waaw ma yàqal dara waaw. on on ñu xaar ma ci lépp tubaarkàlla sama deuxième single bi dina génn bu soobee yàlla léegi rek. non non non aaway ah, danoo ñaaw seen bopp yi amuñu karaw seen ginnaaw yi daal di lim seen yére yi daa furi man Baye Modou Kane laa àndal lu ma neex def ma sataak ma seer ndaak ma yow tam yaa ngi koy laaj. ma sataak ma seer ndaat waaw waaw dégg waaye kii suñu mag la jee asu yebal ko muy taasukat bu mag bu yàggul dara tubarkàlla maasal ah xoolal lii kii ab kii mooy ab sama ba taasukat bu mag incha allah dañ ko yeggale waaw dañ ko koj foofu où sont les célibataires mbële sumbulu mbële man mel ne mii eh, way ndaw eh, bilaaj ah non liggéey bi léeg-léeg mu bare lool léeg-léeg eh, pièces yi du ñëwagum te balaa ngay jouer rek il faut ñu bind pièce woola pour nga jouer indemnité maanaam théâtre kenn du ci retraité yéen ba léegi xamu leen ni kenn du ci retraité théâtre dafay am maam théâtre kenn du ci retraité parce que dafay am maam am baay c'est nag ah, bu fekkee ne nit bindul pièce su théâtre woo ni la kaay nga joué ma da ngay xaar ba kooku bind bu la wooyee nga joué ko mu fayal ah, ñàkk gis bi ay nit su demee nekka nekk xale bu góor ba am doom ba sa doom mën la remplacer si dara da nga normalement da nga war a jiital sa doom jooju moom mu joué war sëgam loolu moo moo moo tax xale yi di feeñ ni ñu leen di suyeloo ñoom tam ñu siy lekk nun première booba benn télé moo amoon léegi télé yi bare na waaw jël nañu xale yi di leen fay ñuy suyee ah série yi série cinéma la nun dañ doon yeete ñoom cinéma la ñu suyee moo tax moo ah, ah déet du ma yeete wuñu de ndax bale nit mën na yeete si loo xam ne Ah, du du domaine mag fekk yow yaa ngi yeete ci affaire xale nun ci affaire mag ñi lañ doon yeete ah, ñoom série cinéma la ñu tuye cinéma tubaab moom ah ñoom xale lañu génération boobu loolu la ñu bëgg ñi leen di ñi leen di ñi leen di fay si xaalis pour ñu suyee série loolu la ñu financé am nañu si droit waaw mais ñun waruñu si wax dara ndax sanuy doom la ñu te ñi nga nuy jox ñoom xale yooyu di suyee série ña nga nuy jox sunu sunu sunuy àllarba waaw ña nga nuy jox sunu àllarba xale yu baax la ñu tabaarkalla macha allah ñoom métier bi ñu def noonu cinéma la nun yeeta la ñu waroon doon def théâtre waaw théâtre waaw xam nga xam nga léeg-léeg dégg ko naan ne si koñ rek reelu naan man artiste la artiste la xam nga lan mooy artiste artiste tuddul artiste artiste la tudd artiste boo bu nit amee métit di seetaan say pièces di ree wala di kii ba fàtte tiis boobu loolu mooy artiste ku mënul loolu nekkoo artiste wasalaam. Euh, ñaari ñaari tànk laa benn bi mooy euh, mbenn jaata euh, ci ay dëbbeem dafa jaar ci sama loxo dafa jaar ci sama loxo bokk naa ci ñi ko gunge. ba mu am li mu am tey bi ci des mooy sunu beneen doom mu ji as sare eh, ñooñu tax ma teew bi parce que loolu mooy sunu droit fondamentalement dañu war a ñëw assister leen nemmeeku leen ñu xam ni ñoom am na ñu nekk seen gannaaw am na ñu dëgg ñu nekk seen gannaaw parce que bu doon caaxaan du ma ñëw du ma jóge ba Tivaouane naa ma ci bien di Tivaouane comme ça donc sant yàlla la et di leen ñaanal yàlla muy benn jaata di jé ak sare fu nu jublu yàlla fu yàlla jublu et eh, rawatina ji assurance xam nga gars yi dañuy wax géwal noonu ñëpp ay géw gis nga lu baax rek nga wax ko une fille koo xam yëpp mooy defar doomu aadama yi pensée bi yëpp mooy lu mu am bokk ak doomu aadama yi ne kooku bu dee gor dañ ko war ñaanal dañ ko war a wax ñëpp di ko dégg et eh, macha allah mbenn jaata nag moom dañ ko ñaanal ci gars yi toll mu romb leen parce que waa Kajoor la ko waa Tivaouane la eh, merci du li mu daan def ci man rek. maa leen jàngal dama ciy bëgg sant ci yàlla maa leen jàngal ba ñu màgg ki nga xam ni moom la Mbeen Jaata tudde bis bi muy jeesare maa ko jàngal ñuy xale yu baax ñu gëm la ñuy def lii daf may neex trop waaw daf may gën a dundal xool ñoo xam ne bi ñuy leer nga leen yor ba léegi maa ngi leen di fay non ñu ngi fi rek uh-huh. waaw ngi fi waaw ñun nag waaw Mbène Diatta ñun jey asu sare waaw moo ñu indi jey di xale bu baax uh-huh. xale boo xam ne daaray ko ci la ne woon yàlla yóbbu ko mais mu doon ku baax bàyyi ñu xel lool nag di ñu jàppale lu mu am bokk koo ñun am yar am teggin mu ñu tuddee ko bés nag moo ñu fi indi waaw. ah waaw na bon jamono day dox waaw xëj na ñun li liñ doon def àddina mooy changé jamono day dox. waaw mais ñun nag ñu ngi ci yoon wi ñu ngi ñëw waaw waaw neex na ma trop sama macha allah macha allah maa noo def maa ngi lay fay maa ngi ci <laughs> bul wax loolu nag yow tamit relation jàmm ak salaam mu def soirée de ko sudd way ci sunu doom muy jee asu sare mu nekk États-Unis mënul ñëw waa daal ko ci ñëpp toogal ko fas yéene jàkkaarloog Mbène Saret Mbène Diatta rek ànd ak moom defar ba mu baax waaw defar bu baax. maa ngi nii rek xam nga temps yi dañu noppalu ko waaye bu soobee yàlla leen léegi ngeen bokk kontaan ndax reprendre nañu incha allah léegi ngeen léegi ngeen gis lu neex beneen façon déet déet ah lu tax pour lan macha allah. waaw série yi neex na ba de ndax jamono ji nekk ak lu mu laaj jamono day dox te buy dox da ngay dox ànd ak moom série yi macha allah yëpp neex na macha allah macha allah macha allah macha allah merci beaucoup merci. waaw Mbène Diatta avant tout sénégalaise la avant tout citoyenne la di chanteuse mu xewle ñu war ko mën fekk se mais tey suñu taxawaay particulièrement li ko gën a yokk mooy Dieng Assou Sare ñëpp xam ne ne moom mooy jaata ñu nekkandoo xale màggandoo ba nekk mag euh, mu way ko morceau bu neex tudd ko guddi gi te jee as sore ñëpp xam ne na daara Kocc la ne woon loolu waral suñu teewaay tey pour jàppale ko si bés bi rek mu neex waaw. waaw xanaa ànd ceeg bëgg ànd ceeg bëgg parce que euh, nit ñi xamewuñu ma loolu nit ñi dañ ma xamee si di euh, maire bu calme bu réglé bu discipliné effectivement man de nature noonu laa mel mais quand même baax na de temps en temps ñu lay dugal ci beneen gaam boo xam ne bi peut-être waa ni ñi duñ la ko xamee waaw mais ça m'a fait plaisir parce que liggéey naa ko euh, yaakaar naa ne seeni borom kontaan nañ ndax xam naa ne sénégalais yi kontaan ne ndax fu ma tourné ñu wax ma ko ngoon alhamdulilahi rabbil alamina waa kii mooy maire Diagne garo jalika lakkal jalika gar xaratu laal rek ngay dégg macha allah san <laughs> waa Marème moom sama doom la macha allah Marème sama doom lay naa ko dama lay baal dama lay mais moom dafa daw xaaru sax ma kii ko waaw <laughs> waaw saison 2 bi nag xanaa gën a góorgóorlu rek parce que ñun ay artistes lañ euh, du toujours la ñuy mën lépp mais dañuy sàkku yàlla jàppale ñu suñu liggéey barkeel ko euh, saison de bu ñëwee incha allah bi rek euh, ma jéem dépassé def li nga xam ne dafa naak ci première saison bi waaw man daal ma jéem a def li nga xam ne li moom la euh, population bi di xaar ci man incha allah loolu laa fas yéene waaw merci ok